munoo egg egg mais. non lii daw na yaram lii munoo yegg quoi wax dëgg fa ne lii triste na lii triste na lii triste na ku xool lii xam ne lii triste na. tey bu ñu waxee ay nit ñoo nekk ci ci sa yaram day daw tey bu ñu waxee ay nit ñoo nekk sa yaram day daw ñu ngi ñaanaat état bi lu ñu mën def nañ ko def pour génnee nit ñi si situation bii ñu dëgg fa neex lii daw na yaram allahu akbar pousse leen pousse leen pousse dafa bëggoon dem Bougane dafa bëggoon dem Bougane dafa bëggoon dem mais mais Bougane dafa bëggoon dem mais wax dëgg fa nag Bougane foo mu sànni kaddu foo mu sànni kaddu foo mu sànni kaddu foo mu sànni wax dëgg fa nag daw na yaram quoi lii wax dëgg fa ne yàlla daw na yaram daw na trop lii taw na yaram